saraax la nuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye ma xëy yëkkati ay kàddoom fësal ko ci sunu lamb Balla Gaye 2 lan nga wax mu ne lamb ji ba lamb ji dañ mbooleem ñu fiy takk ngemb amul kenn ku ma ci ñeme mbooleem ñu fi am licence dóor ak licence simple ñi koy waaji am amul kenn ku ma ci ñeme mbooleem ñu fi nekkooni mbër ba bàyyi lamb ak ñiy waaji nekk mbër amul kenn ku ma ci ñeme man Balla Gaye 2 maa xamle li ni mel tous les lutteurs wax man la ñulug damaa bëgg mu dugg ci nopp ñëpp man maa ne lamb ji amul benn mbër bu ma ci ñeme ku am fi du jàkkaarloog Balla Gaye 2 moom laa gisugul ci lamb ji yi ju doon wax sama diggante ak moom te Gaston Mbengue nekkoon ci ragaloon ma képp bu waxee dëgg te yàlla tax leen ñemewuma Balla Gaye le ko ñeme danga koo xamut rax ne combat mag Gris Bordeaux benn dërëm bu duggoon ci gafakaam combat bi ba nu ko taxawaleeg léegi ñaari weer ci tey dërëm duggagul sama loxo même bu dul Gaston Mbengue it am na yeneen promoteur yu bëgg bile combat maa ngi dégg ñuy wax waxi Aziz Ndiaye waaye dama bëgg ñu xam ne Aziz Ndiaye sama agent la dama bëgg ñu xam ne Aziz Ndiaye xaajul bay taxawal sama combat Gris Bordeaux moom Aziz Ndiaye ba ñu ko laajee ci diggante Gris ak Balla Gaye la mu xam le mooy Balla Gaye moom jotagul dërëm rax ca dooli ne moo Gaston Mbengue seq jàmm ak salaam waaye du défendre intérêt yi keneen bàyyi yu Balla Gaye moom Balla la fi nekkal te moom lay défendre ay intérêt bu nu jàllee ca yeneen combat Gaston Mbengue ya ko Gaston Mbengue ma fi nekkoon ca diggante Balla Gaye ak Gris nekkoon fi ci diggante Eumeu ak B52 moom moo safaat sàpp ci bile combat diggante Diène Kaïré ak Modou Anta le journal ba xamle foofu mooy bile ko Lamine Diong ñi technique moom gannaaw audience am mbag Matar Ba ba mu génnee la mu xamle mooy CNG bi dana am ay changement dana am ay changement yu rëy ka ko xamle mooy Matar Ba rax ca dolli ñu ne Matar Ba moomee sax fixé na ay règle ngir waa CNG règle mu fixé waa CNG fédération ci la bokk moom Matar Ba la mu xamle mooy bàyyi na xel bu baax ci la xew ci làmb ji xam na fi bëgg-bëgg yi toll xam na fi ñaxtu yi toll waaye fédération bàyyi xel bu baax ci lutte simple beeg na muy demee war nga koo jox gëddam jox ko cëram leneen lu fi waaye def lu dul loolu yàq nga ko bu nu jàllee ci écurie yëmbal mbooloo dañ leen di fekk seen bilan 2019 2020 ñu def 3 victoire 3 défaite seen bilan ren bi 6 combat nu am seen 3 victoire yee caatu yëmbal moo daan baara bu bàcc séeraas rëm daan lastandeer bu ñàkku rab mbës daan kuensi 2 bu lébu ba mataan redresser la barre la saison prochaine saison bii di ñëw ñu yokku cere dolli ñeex delloo lamb ji nekkoon jërë ngeen jëf mbokk moo nekkoon li gën a fës ci été yéenekaay bi ñu leen jox di ba ëllëg insha